أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi ànd ak yéen ci téere kitaabu tawxid ñoo ngi tolloon ci buntu anna baada hadihi l umma yacbudu l awsaan ne xeet wi yonent bi alayhi salaatu wasalaam xabaar na ci ñoom ne balaa àddina bi di jeex xeet wi danañ jaamu ay xërëm tey ñu ngi ci jël benn aaya bu borom téere bi di ñu firil di ñu leeral dalil yooyu ñu wax ne xeet wi balaa ñuy jeex danañ jaamu ji xërëm aaya bi mooy qaala alladina galabu ala amrihim lanattaxisanna alayhim masjida suratul kahf aaya 21 pour ñu dégg darsu tey bi ak aaya bi dañuy delluwaat ci téere ibnul jarir at-tabari ci téereem bi mu tafsir quran mu tafsiral ñu aaya bi mu ne waqad ixtalafa ahlul ilmi fi sababi masiri haulaai alfitya ila alkahfi allazi zakarahu llahu dafa amoon ci jamono ci benn dëkk boo xam ne ay xërëmkat lañ woon ñoom dëkk boobu dan daan bokkaale yàlla di jaamu ay xërëm bi loolu amee am fa ay xale yoo xam ne dañoo gëm seen boroom am tawxiid léegi nag buur bi yëg ne am na ñu fi wéetal yàlla buur bi daan ne nañ jël xale yooyu daal leen di rey xale yi bi ñu yégee loolu mbokk jullit yi xale ya daal di daw daal di fàq génn dëkk ba ngir rawale seen imaan rawale seen pas-pas rawale seen kennal yàlla loolu lañu aaya bi di nettali waaye loolu lañu boroom xam-xam bi di wax xale yi ñoom ñooy ñan mu ne boroom xam-xam yi dañoo wuute fii sababi masiri haula il fitiya ci sababu mujjuwaayu xale yii dugg gi ñu duggoon ci seen xunt moomu nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala mu ngi ñuy tuddal xunt mi ci alquran ba sax aw saar lañ tuddee histoire bi mooy suuratul kahfi ay aaya ñëw ci yàlla di leeral xale yi ñoom ñooy ñan fa qaala baaduhum lenn ci boroom xam-xam yi ñu ne kaana sababu zalika annahum kaanu muslimin lakin ala diini isa ñu ne xale yu góor yi de ay jullit lañ woon waaye ci ban diine lañ nekkoon diine isa alayhi salaam ñu ne wa kaana lahum malik aabidu wasan amoon na fa benn buur bu bokk ak waa dëkk bi jamono nekk seen buur waaye buur boobu lan moo doon métier aabidu wasan danaan jaamu xërëm moom buur boobu jaamukatu xërëm la woon daahum ila ibadati l asnaam bi mu déggee xale yi ñu ngi wéetal yàlla mu woo leen ba xale yi ñëw mu ne leen il faut ngeen dellu ci xërëm sa il faut ngeen nekk ay bokkaalekat fa harabu bi diinihim xale yooyu daal di daw ak seen diine daal di génn dëkk ba ba ñu dawee lan moo tax ñu daw xasiyata an yuftinahum an diinihim aw yuqtalahum fastaxafu minhu fi lkahfi xale yi bañ nañoo delluwaat ci jaamu xërëm bañ nañoo delluwaat ci shirk ci ay aada ak ay bidaa ci bokkaale yàlla xale yi nan lañ def mooy dañoo daw gi leen buur bi woowee ci jaamu xërëm li ñu dawee mbokk yi ñu dugg ci benn xunt ci àll bi lañ dem fekk fa benn montagne xeer montagne bi dafa am pax boo xam ne pax mi boo ci duggee ci biir dafay mel ni ci néeg nga dugg xale yi daal di dugg ci xunt ma lii nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam leeral nañu ko mooy xale yi biñ dawee ñu daal di dugg ci biir xunt mi yaa ndekke li ñuy wax chaque jour mooy nit day nam ma def dara ne lii laa bëgg waaye yàlla mooy def ay mbiram moom tamit mooy sotti li nga bëgg mooy am walla du am xale yi lu leen tax a génn bañ a delluwaat pour rawale seen pas-pas daan bañ a delluwaat ci jaamu xërëm bañ a delluwaat ci ay bidaa bañ a delluwaat ci bokkaale waaye daw nañ génn bu ñu génnee dox ci àll bi ba sori ba dajeek montagne dugg ci montagne bi ñu dugg ci xeer bi ne nañ lëbbatu fii tàmbali di nelaw ndeke yàlla moom namm na ci ñoom benn mbir yàlla daal leen di rey ci xeer bi yàlla faat leen foofu ñu nekk fa nekk fa nekk ba ci ay at yu yàlla dogal yoo xam ne yokku na ay weer walla ay fan yàlla def na buur ba dee na ay at buur bi dee dëkk bi soppeeku dëkk bi soppeeku ba xaalisu dëkk bi soppeeku xaalisu dëkk bi sax dañ koo changé ñoom foofu ñu nekkoon yàlla dekkil leen bi ñu yeewoo dañu xiif ñu yónni kenn ci ñoom ne ko demal dëkk ba nga jëndal ñu lekk demal marché ba ah waa ji bi mu génnee ñu ne ko nag na nga def attention balaa ñu lay gis balaa ñu lay yëg na nga nëbbatu moom diggante àll bi mu nekkoon ak marché ba rek fekk na lépp changé waaye bi mu demee li tax mu feeñ mooy xaas bu mu yóbbu ci marché bi xaas bi depuis njajan njaay la woon depuis loolu maire yi naan paa yi naan atum bërigo dërëm xam nga bërigo gerte dërëm ah bërigo gerte xam nga bërigo li mu toll gerte ba mu fees ñu koy jaay dërëm ah boobu jamono ñu ne ko waayow yow foo nekkoon mu ne ah fan laa nekkoon lan mooy loolu ñu ne ko mais xaalis bi ngay est-ce que yow normal nga mu ne waay ñeen ni yéen a normal li muy xaalis dëkk bi gars yi daal koy jàpp loolu la ñu alxuraan di nettali ci ñi alladina qaala alladina galabu ala amrihim lanattaxizanna alayhim masjida mu ne aaya bi hasil aaya daf ñuy nettali istuwaaru ashaabul kahf waaye mbokk yi ñoom seen istuwaar wa qissatuhum ajiba seen istuwaar dafa yéeme dafa yéeme trop kama qaala taala comme ni ñu ko yàlla nettalee ci quran istuwaar yu neex yi ci quran ashaabul kahf ci la bokk fitiyatul kahf ci la bokk istuwaaru yusuf moo ci gën a neex waaye boo xoolee histoire yëpp yu la yàlla di nettali genn wàll gi yëpp iman la iman xoola xale yi ay xale yu ndaw ay jeune tey jeunes yi ñoom jàpp na ne lan moo war a nekk seen liggéey muy football bëri caaxaan Sénégal boo fi buggee jaamu yàlla nga nekk jeune lu lay wax xaar ba ci kanam wala xaaral ci kanam mais yow xale bu ndaw di dem di ah di dem jàkk yow sa téere bi ah non vraiment yow yow dundoo ah seen waa kër sax dañ lay mere seen waa kër yenn saa yi sax nit ñi ne sax dañ lay yërëm dañ lay yëri xool ba jàng ci ah xool ni nga jantale woon rek léegi yaa ngi def sa bopp paa yow loolu mel nii loolu lañ lay wax parce que sikkim bi nag ndeysaan dañ commencé di la di la di la di la mel na yow da ngaa jaar ci lu bon moo tax yàlla ne ñii seen histoire dafa yéeme borom bi ne am xasibta anna asxaaba alkahfi warraqim kaanu min ayatina ajaba xale yi ak seen xaj seen xaj baa ngi tudd raxiim mu ne waxum fityatun mu ne ñi ay xale lañ amanu billahi gëm nañu yàlla wa kaanu nekkoon nañ fi bilaadi shirk ci dëkk bokkaale lañ nekkoon dañoo gëm yàlla waaye dëkk bi ñu nekk dëkk bokkaale la moo tax képp ku gëm yàlla soo bëggee am iman am tawxid te doo def ictimaad maanaam doo sukkandiku ci alxuraan da ngay nax sa bopp beneen bi mooy képp ku am iman bëgg a dund ci dëkku shirk du dem doo dem de fokk sa dund am lu ci gàllankoor parce que waa bokkaale duñ la bàyyi moo tax foog nga fippu foog mu nekk xeex diggante tawxid ak shirk waaw diggante wéetal yàlla ak bokkaale mun nu nekk ñoom ñaar mun nu ànd mi ngi mel ni nga bëgg a jël soow di ci def deret est-ce que mun na ànd mënul ànd soo mi lu mu neex neex neex neex koo ko jox du ko naan mu gis toq deret bi ci digg bi rek toq bi laa wax du ko naan wala même boo ko bu bu waa ji gisul dara nga ni ko ah waaw soo mi de neex na de waaye sànq dafa cee toqal deret mu xool gisu ci dara sax mais du ko naan est-ce que ñaar yi ñoo àndul mu ne nekkoon nañ ci dëkk bokkaale fa xaraju ñu génn minha ci dëkk ba fuñ jëm ila allahi azza wa jal di jublu yàlla subhanahu wa taala wallahi nit dafa war nekk chaque jour kuy gàddaay di bàyyi caaxaan di génn di génn gis ngeen génn génn tàmbaleewul ci yonent bi de yonent yëpp a génn yonent yëpp a génn képp ku bëgg a dund diine foog nga génn yonent bi bu mu bëggee dund diine nu mu def dafa gàddaay fu mu jógee màkk jëm fan jëm Medina Ibrahima bi mu bëggee dund diine lu mu def gàddaay ku bëgg a dund diine foog nga gàddaay moo tax am na benn borom xam-xam du ma tudd turam bi muy formé mbooloo mi mu yor ci ñetti mbir la leen formé selon dégginu diine texte yi wootekatu diine yi wala liggéeykatu lislaam yi ku nekk ak ni nga déggee lii mooy tas diine léeg-léeg dañ ciy am ay wuute ñenn ñi dañoo jàpp ne dañoo war a jàngal nit ñi yar leen islaam taxawaat wala ñenn ñi dañoo jàpp ne dañ war a jihaad islaam taxawaat ñenn ñi jàpp ne dañ war a woote woote dugg ci dëkk yi ñenn ñi jàpp ne dañ war a gàddaay al hijratu al iman awalan dañu war a gëm yàlla gàddaay jihaad ñu ne yonante bi loolu la def ginnaaw iman bu mu formé waa maak après mu gàddaay après borom xam bu moom loolu la wax moom ci loolu la nekk ba gaa yi xëy na rey nañ ko wala rey nañ ko allahu aalam mu ne fa xaraju minha ila llahi xale yi génn nañ dëkk ba jëm ci yàlla subhanahu wa taala fa yassara allahu lahum gaaran ndeke yàlla préparé na leen ci àll bi benn xunt raar mooy xunt fa daxalu fiihi ñu dugg ci biir xunt mi fa naamu fiihi ñu nelaw fa nawmatan tawila nelaw bu yàgg lool yàgg na yàggaay boo xam ne balagat salaasa mia sinin wasdaadu tisan nelaw na ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at ku mën a nelaw loolu ci yéen ah ñetti téeméeri at ak ñeenti téeméeri at yu yokk ay weer wala ay fan ndax wasdaadu tisaan yokk na juróom-ñeenti weer wala juróom-ñeenti fan en tout cas li ñu nelaw ñetti téeméeri at la ak ñeent juróom-ñeenti at allahu akbar ñuy nelaw wahum naimun ñu ngi nelaw laa yaxtaajuuna ila al akli wala ila shurbi soxla wu ñu lekk soxla wu ñu naan ci xerañu yàlla sax mooy bu fi ñu nelaw noonu yàlla da leen di wëlbati tey mu wëlbati leen ndeyjoor suba mu wëlbati leen càmmoñ ginnaaw suba mu jaaxaanal leen waaye du nu dëpp lan mooy hikma ci wëlbati bi leen di yàlla di wëlbati luy hikma bi man sama kado yi maa ngi koy fàtte rek am naa ay parfum yu neex ak ay montre benn du ñu yëg mettitu yaram ñaareel bi ah yaram bi du yàqu ñaar ñetteel
mooy seen suuxi di mën a yëngu.
am na beneen terme bu gën a baax deret bi di circuler ndax boo tëddee nii benn côté deret bi day way léegi bu fekkee da nga deret bi day circuler gis nga xoolal yàlla di leen wëlbati ndey joor ak càmmoñ ñoom ñu ngi nelaw de xaj baa ngi ci gunt bi tàllal tànk yi xaj bi sax dafa am iman coy xoolal yàlla lim def mooy ñoom ñu ngi nelaw yàlla utal leen gardien bu nekk ci bunt bi di leen garder gis nga boo gëmee yàlla tëddal nelaw bu ragal lu dul yàlla xoolal rek ñu ngi ci àll mais yàlla indi na leen benn gardien am na sax yenn bor ulamaahu tafsir yu naan dañuy xale yi bi ñu toppee àll bi dem xaj bi la leen topp ñu sànni ko xeer xaj xaj bi dëpp ba ci àgg toppaat leen ñu sànniwaat ko xaj bi topp leen ba ci yàgg biñ ko sànnee ñetteel bi yoon la xaj boo xam yéen ne leen li ngeen gëm laa gëm fu ngeen jëm laa jëm ñu daal di koy bàyyi mu topp leen biñ ñëwee biñ duggee ci xunt bi ndeysaan yàlla di leen wëlbati zaatal yamin wa zaatal shamal hatta la yatruk sababu dami fi ahadil janibayni balaa deret ji dem benn côté daal di fay way côté boobu daal di wow koŋ daal di nagam su ko defee beneen côté bi day paralysé gis nga tey boo toogoon toogaay bu yàgg rek boo buggee jóg da ngay am problème sa tànk yi day imaginer ñii nag ñaata at ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at ndeysaan wala ma xaraju baasu bi ahadihim ila almadina bi ñu génnee ñu daal di yónni kenn na dem jëndal leen lekk léegi nag waa ji bi mu demee moom lañ doon wax sànq ñu jàpp ko benn yére yi mu sol amatul ci dëkk bi xam nga am na yére yoo xam ne bu ko nit soloon rek da nga naan i i wala kaw kaw bi parce que yooyu paase na waaye xaalis bi mu yor dàll yi mu sol yëpp amatul ci dëkk bi gars yi daal di koy jàpp yóbbu ko sécurité yi waa sécurité waa sécurité ba mu egg ca buur ba fekk yàlla def na waa dëkk ba genn wàll gi yëpp dee nañ buuru dëkk boobu nekkoon yéeféer dee na dëkk bi léegi buur bi fi nekk dafa gëm yàlla dëkk bi ay jullit lañ ah ñu daal di waaru waaye yow mu nettali leen histoire ñu ne ko ana ñeneen ñi ñu ne leen mu ne leen ñu nga ci xuntuma di ma xaar gaa yi daal di koy jiital mu topp leen ñu topp ci ginnaawam mu jiitu moo ngi ñoom moo ngi ñoom moo ngi ñoom ba ca xuntuma biñ ñëwee ñu fekk leen ñu topp waaye xam nga leen moo yéeme ba mbir mi leeree naññ naññ naññ ba ñu gis leen ba ñu nettali buur bi yëf yëpp dañoo faatuwaat dee bu dëgg bi nag lañ def bi ñu faatoo nag nit ñi ci seen xër xam nga nit ñi chaque jour li tax ñuy bokkaale muy xër gu àndal ak njàng bu nit xëree te jàngul day defa ne lii may def lu baax la fekk baaxul ak a bëri ci dëkk bi ku nekk mën nga cee indi misaal de loo xam ne nit ñi dañ koy def dafa ne baax na fekk baaxul du diine comme wala tamxarit wala Sénégal yi ni ñu sonnee ci tamxarit fekk dëgg-dëgg en fond bu ñu doon xool dëgg sax ci lañ rey doomu yonent bi ñu ne doomu yonent bi ngay ngay lekk cere di feetu di lekk yàpp
gis naa ay adam ay sëriñ yoo xam ne bés bi dañuy bind sax ay saafara di waaw yooyu mooy yooyu mooy yooyu yooyu mooy bidaa yi loolu la man ñooñu ñoo dëgër ñoo réeral ah gis nga maanaam nit ñi bëgg nañ lu baax mais xamuñu beneen ci bëgg lu baax ba pare def lu bon
Mawlud.
ah Mawlud.
maw Mawlud.
maw mawlud mooy gàmmu Gàpp waaw.
beneen du jeex lu bëri da ngay bëgg a dundal diine ndeke yow da ngay rëy diine da ngay yàq ndax yaa ngi ci yokk lu ci bokkul ak a bëri wala ay fay faat ah yu kenn xamul jàngal alxuraan ku dee faatu di ko wàcceel ay kaamil ñu lay fay yooyu yëpp gis nga nit ñi dañu jàpp ne baax na te baaxul mu ngoog mbokk yi léegi ba histoire bi amee léegi xale yi faatu nañ ñu commencé nit ñi commencé ñii daal seen xuntu mii ñu dee nii mënuñu leen a defal lenn lu dul di barkeelu ci ñoom kon nañ fi tabax jàkk di ci julli gis nga loolu mooy aaya bi wala loolu ngeen tiim seen i téere ah wa qaala allazina galabu ala amrihim lanattaxizanna alayhim masjida ñi nga xam ne ñoo noot ci mbiru ñii maanaam ñoo yor autorité dëkk bi ñoo yor autorité barab bi ñoo ëpp doole ñoo am sañ-sañ ci xale yii ñoo ne ñii daal yemuñ sax ci wax de dañoo waat laam bi laamul xasam na nuun bi nuunu tawkiid lanattaxizanna iñ nañ ci yàlla ci màggaayam ñii danañ leen jàpp jàkk di leen jaamu danañ fi def jàkk di fi julli léegi nan lañ def ñooñu sax ñu tane bu doon fii la ci digg jàkka ji lañ leen di suul ci digg xunt mi def xunt mi jàkka waaye ñii sax ñoom defuñu noonu ñoom dañ leen bàyyi ci xunt mi mais buntu xunt mi la ñu sës
Jàpp.
la ñu sës minbaru imam bi xam nga minbar bi nu muy rombe nii minbar bi lañ def kubéeru kubéeru xunt mi léegi waa jàkka ji fu ñuy jublu ci xunt mi direct mais duñu dugguñu ci biir xunt mi dafa julli waaye dañoo sës kanamu jàkka ji minbaru imam bi la ñu sës rëkk tëje ko xunt mi bunt bi lañ ko tëje gis ngeen mu ne bu ñuy jàng dëgg-dëgg aaya bi ak ñi seen àtte mooy itixaasul masajid alal qubur jël jàkka yi di ci def ay néew di ko def ay bammeel nee na loolu min amali ahlil kitaab dafa bokk ci liggéeyu ñooñu téere yahudi ak nasaraani ñoo moom loolu yahudi ak nasaraani ñoo moom loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokk jullit yi jàkkaam ji madinatul munawar bi mu ñëwee cëpp madine yeneen tamit kër abul ayub al ansaari la dal sahaaba bu tudd abul ayub al ansaari bi mu fa dalee amoon na benn gëléemam gëléem gi lañ bàyyi gëléem gi dox ci mbeddi Medine ba yegg ci benn bayaal gëléem gi daal di fay yës li waral loolu ñu bàyyi gëléem gi gëléem gi dox ba yegg ci bayaal ba yës fa mooy yonent bi mu ne cëpp Medine ñëpp dañoo faax ku nekk naan ko sama kër ngay dal loolu jaadu na wala jaaduwul ah yéen ñi tey bu yonent bi ne woon tël ne damaa bëgg kër gu ma fanaan même boo amoon benn lal sax boo amoon benn pentre di ngeen ne yonent bi nañ dem sama kër wala ñoom tamit ñu xëccoo yonent bi ne bàyyi leen gëléem gi moo may mooy wane fan laay dal fu may dëkk ah gëléem gi dox dox dox dox bay gi ci bayaal bu kenn dëkkul gëléem gi daal di fay yées yonent bi ne fii mooy sama dëkkuwaay comme ba kër foofu nag dafa jàkkaarloo kër abul ayub abul ayuba ne ah yonent bi léegi fii bu fii buñ koy tabax fooy nekk gars yi ne mu ne leen fii moo gën a jege waaw ndeysaan xoolal moom it xam nga ban problème la am kër gi ci kaw la ak ci suuf mu ne yonent bi da ngay yéeg ci kaw yonent bi ne ko mukk ci àdduna yéeg ci kaw ci suuf kay boo mënul ci suuf ma bàyyi mu ne yonent bi mukk ci kaw rek yonent bi lànk na ko ci suuf rek mu xam ne dafa nar a perte mu ne waaye yonent bi dama ci suuf yonent bi dugg ci suuf xam nga luy problème am ñemeetul yëngatu bu doxee affaire yi ne këk këk këk mu ne ah man duma alku mbaa duma alku bu doom yi sëqatee mu ne leen da ngeen di lor yonent bi bu jabar ji togg kenn mënatul def benn bruit bu ñuy dox seeni baaraam la ñuy teg lan la yonent bi moo nekk ci suuf wax leen ndànk ndeysaan ba ci ak affaire yi sonal ko mu wàcc ne yonant sonn naa de mu ne ko loolu sonal mu ne ko li nga nekk ci suuf mënatumaa dox ñemeetuma teg sama tànk yonent bi loolu tax mu ne dama yaakaar ne bu ma dëggee sa kaw laay dëgg ndax yaa ngi ci suuf ñoo ngi yéeg ci kaw yonent bi ne ko waaw daal di yéeg ci kaw yonent bi wàcc moom mu yéeg yonent moom mu wàcc yonent bi daal di yéeg ci kaw gars yi commencé tabax foofu waaye bala ñuy tabax ay armeel la woon dañoo sulli niir yi yax yi dañ ko sulli suuli ko feneen lan moo tax ñu sulli ko parce que yonent bi jàkka la fi bëgg a def te jàkkaak ay néew àndul bu doon kon baax na rek ñu bàyyi ko yonent bi la ko fi bàyyi waaye dañ leen dañ ko sulli moo tax mu ne jël ba pare kooku benn la ñaareel yonent bi bi mu sullee loolu ñu dem suul ko feneen ñu tabax jàkk ji ci kanamu jàkk ji ay mètres yu sori ay yonent bi tabax ay armeel armeel yi ngeen gis tey muy bax yi nekkul ci biir jàkk ji lan moo tax gaa yi ku faatu lu tax yonent bi suul la ci biir ku faatu yonent dana jël yóbbu la ci armée li suul la sahaaba bu faatu yonent bi yóbbu ci armée li suul doomu sahaaba bu faatu yonent bi yóbbu ci armée li suul soxnaam bu faatu mu yóbbu ci armée li suul waaw bu tax suulu gaa yi ci biir jàkk ji wala jamonoom kenn deewul ah kay mais mësta suul nit ci jàkk ji beneen nga ñaareel mooy ñu bari dañuy jël ay nit di leen suul ci jàkk soo leen nee ñu ne yonent bi ci jàkk lañ ko suul loolu njuumte la mës naa ci wax ak benn waay boo xam ne kooku moom dafa bëri wax rek waaye jàngul nit dañ ko war a suul ci jàkk ku jàngul rek mooy wax loolu waaw ndax kaaba gaa nga ne yonent ba fa lañ ko suul ma ne ko def nga musiba de kaawa gi mu ne waaw yonent bi ci biir moo tax ñu def ci morceau bu ñuul bi ñu muur yonent bi ay way samaay xam nga li ngay wax xam naa ko lu wér la moo tax suñu sëriñ si suñ dee ñu suul leen ci jàkka yi dañ ko xoolaatal say téere say téere yi nga jàngoon lool mu ne ah ma ne ko xoolaat ko kaaba gi nit nekku ci de kaaba gi nit nekku ci xam nga lu fa nekk xajaratul aswad xeer wu ñuul bi aadama jële woon àjjana moo nekk ci biir kaaba gi kaaba gi suuluñu fa nit yonent bi suuluñu ko sax màkka ba balaa ba kaaba gi sax yonent dañ ko suulu sax màkka yonent baa nga midin benn yoo ñaareel mooy yonent suuluñu ko woon ci jàkka ji suuluñu ko woon ci jàkka ji de fan lañ ko suuloon néegu yaayu Aïcha ndax yonent fu mu dee fa lañ koy suul yonent bi mu faatoo ñu suul ko ci néegu Aïcha jamono moo islam tasaaroo yi jullit yi bëri jàkka ji xat ñu yaatal jàkka ji est-ce que dañuy sulli yonent bi ñu dugalaale néeg bi ci biir jàkka ji loolu moo ko indi jàkka ji nekk néeg bi nekk ci biir jàkka ji beneen mooy jàkka mën naa fekki néew waaye néew warul fekki jàkk hmm? jàkka nan lay fekkee néew ah mooy ñu suul ko fële ñu soxla mu yaatu ñu koy yaatal mu dem ba ci wetam wala mu ëmbaale ko kon jàkka jee ko fekki waaye ñu tabax jàkka ji fukki at waa ji dee fële ñu yenu ko indi ko ci biir jàkka ji suul ko loolu daaraam jàkka jooju kenn waru fa julli moo tax mu ne ittixaazul masajid ala al qubur min amali ahlil kitab jël jàkka di fa suul nit ku dee ñu jël place bu ñuy jaamoo yàlla di fa dugal nit ku dee nee na loolu jëfi ahlul kitaab la ahlul kitaab ñoom ñoo moom loolu waaye jullit ñi moomuñu loolu mu ne waqad bayyana zalika rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi leeral na loolu wa hazara minhum mooy tandiku loo ko yonent bi leeral na ko ba mu leer naññ naññ naññ waaye mooy tandiku loo ko nit ñi waaye yemul ci loolu waa xaramahu mu araamal ko ñett a ngi ne yoo xam ne yonent bi def na ko bayyana zalika leeral na ko ne bu leen ko def ndax foofu la yem wa hazara minhum mooy tandiku loo ko wa xaramahu mu araamal ko ñetti mbir la yonent bi def sallallahu alayhi wa sallam wa haramahu ala ummatihi mu araamal ko ci xeetam lu tax li maa yaqdi ila shirki mbokk yi ndax suul nit ci jàkka day yóbbu nit ñi ci bokkaale xool leen fi mu am yëpp lu taxaw ah fi mu am yëpp bokkaale faam ba pare xëy na sax yenn saa yi nit dina non man xam naa du ma bokkaale est ce que yow ni nga xamee noonu la ñëpp xamee te déedéet ndeysaan dama am benn jarbaat boo xam ne fan yii dafa jommi waaw dafa jommi xam ngeen jommi ah waaw dafa dem ci benn bàmmeelu nit du ma wax turu kooku dafa am benn xew-xew bu amoon mu ànd ak ay nit dem ci benn barab dugg ci bàmmeelu waaj toog ne day ñaan ci kanamu bàmmeelu waaj la toog mu jékki-jékki mu dégg lu yëngatu ci ginnaaw mu geesu gis bopp waaji nekk ci yaramu leneen bopp ki muy ki muy nuyu si nekk ci kanamu leneen nee na dafa tiit ba fii digg boppam bi dafa mel ne dafa cuqateeku safara di ci génn xale boobu fan yi may wax ak yéen moo nga mbaaw fa ñuy denc dof ya ndax dafa tiit noonu lañ ko jëlee dellu si ko moo ngi ñamu àndaloon mu ñëw mënul nelaw mënul toog di yuuxu ba léegi nii mu ngi ci diggante dof bu ko yàlla dimbaliwul mu done daal moo fi jar loolu kon mbokki jullit yi yenent bi dafa tere loolu mu ne faqad rawa abu daawud wa tirmizi an ibnu abbas radiyallahu anhuma qawluhu la'ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam zawarati alqubur walmutaxizina alayha almasajid wasiraj rawahu muslim mbokk yi hadis rot na buñ jëlee ci imam abu dawud ak imaamu tirmizi ñu jëlee ci ibnu abbas radiyallahu anhuma wax ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na yàlla na yàlla soril yërmande jigéen ñi dem ci bàmmeel yi ak ñi def jàkk ñi def armeel yi ay jàkka ak ñi ci taal ay làmp ñetti ñi ñëpp yonent bi nee na yàlla na leen yàlla soril yërmande ki def ci jàkka làmp yonent bi nee na yàlla na la yàlla soril yërmande ay armeel ay armeel ay armeel ki def ci ay armeel làmp ki def jàkka xabru ak jigéen ñi dem ci armeel yi ñett ñi yonent bi nee na yal na leen yàlla soril yërmande ñett yi am na fi wala amul jeex wa rawaa muslim jële nañ ci imam muslim mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na laa tusallu ilal qubuur bu leen julli ci bàmmeel yi wala tajlisu alayha bu leen fa toog dana fa def grand place di fa toog bu leen fa julli bu leen fa toog mu ne ñëw na ci saxiix xay ni ci buxaari ak muslim mu ne laanatullahi ala alyahud wannasara ittaxasu qubura anbiyaihim masajid yuxazaru ma sanau sallallahu alayhi wa sallam yenent bi nee na yal na yàlla soril yërmande yahud yi ak nasaraan yi dafa mel ne dañ koo laaj yonent bi lu tax mu ne ittaxasu qubura anbiyaihim masajid dañoo jàpp seeni bàmmeelu yonent def koy jàkk nee na yonent baa ngi tere lii yu xaziru ma sanao yonent baa ngi tere ñoom la ñu defoon pour ñun ñu bañ ko def gis nga tey dafa bokk ci jullit yi lu bëri bëri dañ koy jëlee ci yahudi ak nasaraan yi aka bëri aka bëri ñun jullit ñi tey lu ñu jëlee ci yahudi ak nasaraan yi anniversaire fan lañ ko jëlee ah te nasaraan yi réception ah robe de mariage ku góor ki costume costume bu noir femme bi sol yére yu weex jigéen ñi dem ci bàmmeel yi yépp ci nasaraan yi lañ ko jëlee ak baggulan fiançaay fu ñu ko jëlee ci nasaraan yi yu bëri yu jullit yi def ci nasaraan yi lañ ko jëlee ak bëri ci suñ diine ci yoo xam ne ci nasaraan yi lañ ko jëlee ak a bëri dañuy gis nasaraan yi def ko rek nit ñi def ko waaw jël nit di ko suul ci jàkk ci nasaraan yi lañ ko jëlee def ci ay armeel ay fleur ay karo ci nasaraan yi lañ ko jëlee di ci sotti ay cuuraay ak di ci taal ay làmp utal ko ay gardien koo xam ne da koy bale di taal cuuraay bi yow xamoo ndax waa ji mi ngi safara nga koy taalal ay cuuraay xanaa déggu leen yonent bi ne rubba qabrin yukaf wa saahibul qabru fi naar bëri na bàmmeel bu ñuy wër fekk borom bàmmeel baa ngi safara te gaa yaa ngi wër di ñaan ci bàmmeel bi fekk waajaa ngi safara waaw te yaa ngi ñëw di siyaare bàmmeel bi di ko raay di jooy di ñaan fekk borom bàmmeel baa ngi safara nanu yàlla musal mbokk yi ci yàlla mu ne inna ulaika ida kaana fihim rajulu salih mu ne ñooñu li ko waraloon mooy bu fekkee am na benn waay bu baax fa maata banaw ala qabrihi masjid ñu tabax ci jàkkaam ñu tabax ci bàmmeelam jàkk gis nga eh, nit nit ku baax sax nit ñi bu ñu wérul bu ñu doful woon am nañ kenn ku baax ci dëkk bi dee na baax na ñëpp xam nañ ko teñ ko yóbbu ci bàmmeel yi ndax yàlla rus ko bokk yërëm waa bàmmeel yi du loolu la ñu war a def wala tey mbooloo mi ñun bu naan doon ak ku baax koo xam ne dañ koo rus fu ñu egg si nu ñuy def même oto yi oto yi bu ñuy dem di dem di dem yenn cérémonie diine yi da ngay gis ñu ne diw ne nekkal ci kanam moom bu bu police yi ne nii mu ne nii rek dañ naan eh dem leen dem leen ndax lan dañuy bàyyi oto yëpp jàll ndax ndax waa ji liñ ko ormal wala waaw bu fekkee waa ji daa baax dee na mënuñu koon bàyyi ñu sul ko ci armée yi ndax yàlla yërëm waa armée li boobu mais ñu jël ko isolé ko waa armée li ñu isolé ko dem suul ko fële moom kenn benn ku ñu suul isolé la ak jullit yi xoolal liñ la xañ xoolal liñ la xañ kenn du la ñaanal hmm? atte yi ñuy def ci bàmmeel yëpp kenn du ko def ci sa bàmmeel a aadaabu ziyaara al maqabir kenn du ko def ndax foofu gaa yi di dugg dañoo jàpp ne du bàmmeel ba duñ fa wax lañ fa war a wax bu ñuy dem ci bàmmeel yi xoolal tey yow booy dem ci bàmmeel boo yegsee ci bunt bi lay wax asalaamu aleykum daarul ah daarul qawmil muminin antum saabiquun wa inna insha allah bikum laahiquun yaghfir allahu almustaqdimina minkum wal mustaaxirin ñaan yi demee noonu ak riwaay yi demee noonu moom ngay ñaanal moom ngay ñaanal ki faatu moom ngay ñaanal bàmmeel bi tey bu ñu suuloon fi mel nit ku ñëw doo dugg doo wax loolu lu tax doo wax loolu ndax danga naan man ci jàkk laa dugg dugg ma ci armeel gis nga gis nga yi ñu lay xaj moo tax ku faatu dana laa war a jël suuli la ca nit ña waaye jël imaginel bu nu ubbee jàkka ji léegi ñu ne ku baax ku dee rek fii lañ lay suul kilifa diine bi ñaata doom la am juróom fukki doom léegi ñooñu ku dee yëpp ñu dugal ko ci jàkka ji bu yàggee jàkka ji dootuñ julli famille boobu yëpp nag ba léegi nag bu dee kilifa diine bi moom dafa am yor ñeenti jabar jabar bu nekk am nga ñaar fukki doom ñooñu ñëpp ku dee fu lay dugal jàkka ji lu muy mujj nekk loolu da xel nangu ko sax léegi nu ñuy def dañuy jël entourage bi léegi ñu ne bu ko bu leen ko dugal ci biir jàkka ji mais li wër jàkka ji mais foofu tamit bu yàggee day fees day nekk ay armeel parce que ñii dañuy takki ja- dañuy dee dañuy takki jabar seen i sët yaa ngi fi ku dee ñu suul la foofu ku dee ñu suul léeg-léeg sax am benn muqaddam ci kër gi ku dee ñu ne suul leen ko foofu léeg-léeg seen benn taalibe bu dogg bu dee ñu ne indi leen ko foofu kii ci kër gi la bokk ñu jël ko ne ko fa punjong fa jëm bu yàggee kenn fa julle moo tax daal ku dee wax dëgg yàlla dan laa war a yóbbu ci armeel yi jullit yi waaw ku dee moom dee nga dangaa baaxoon suul la ci armeel yi du la tere baax dangaa amoon leer est-ce que bu ñu la suulee ci armeel leer gi day dem dangaa amoon barke est-ce que bu ñu lay ba ci armeel jullit yi barke bi day dem au contraire sax xanaa barke bi boog da nga ko war a tasaare ak leer gi boog da nga ko war a yóbbu foofu ndax sax ñu baal ñu bon ñi waaye yow kese nga ni cundum ak moom fee boolu ginaar boolu ginaar bool boo xam ne am na cent ginaar yow kenn nga toog ak moom fële te nga gis baas ba la ñëpp xiif ba pare nit ñi ne kee ku baax la ñu ne kan moo baax nga ñëw ci ñu xiif ñi nga leen borom téeméeri ginaar yi la ku baax la gars yi dañ lay ci pat waay kan moo baax nga ni kële yor téeméeri ginaar yi ñu ne nga ni lan ñu ne dafa baax ah kon kay sa mbaax gi indi ko fii ci nit ñi ci miskin yi mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñooñu li taxoon ñuy def loolu mooy ku baax bu faatoo ñu tabax ci jàkka ji ci bàmmeelam benn jàkk wa sawaru fihi tilka suwar duñ ci yem sax waaye dañ ciy wékk fotoom ñu wékk ci fotoom da ngay dem ci armée li gis ay photo ñu def photo waa ji ba pare daal di bind ci suuf ici reposé diw wala ñu def benn cadre bu ngand wala dessin bu ngand ci wetu armeel bi loolu dëgg-dëgg jaamu xërëm weesuwul lool léeg-léeg ay nit ñëw di raay photo bi naan ko nii di diw seen kanam mos naa dégg benn waaye mu ne diw nee na bu doon du pàppaam ku woo photom bi mu tontu dégg naa loolu ak sama nopp bi te ba léegi maa ngi koy dégg ñu ne diw diw nee na bu rusuulu woon pàppaam photom bii ku ko woo mu wuyu mu wuyu photo buy wuyu photo photo photo buy wuyu am na yoo xam ne wax dëgg yàlla du diine te réeral jullit yi la sànk leen waaw yooyu yëpp ay xërëm la xam nga yeneen bi lu mu wax mu ne ulaayika ñooñu charaarul xalqi yowmal qiyaama ñii ñoo gën a bon ci li yàlla bind yowmal qiyaama ulaayika charaarul xalqi yowmal qiyaama ñii ñoo gën a yées ci li yàlla bind yowmal qiyaama kon bokk jullit yi lii moo doon sunu dars tey ñu ñaan buur yàlla subhaanahu wa taala muy def ci ñun dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh